ziar na doole ziar Idi. naka sant bu wér a wér. dégg Mbour Mbour. sa diggante nga waay wàccaay bi nan la woon. sant yàlla rek dugg nañ si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbil alamin sant di jégalu képp kuy bëgg meeng Mboro di jégalu doomu tuur yëpp sant yàlla maay waat dinaa ñëwaat at beneen façon. mbeng Mbor lim lim jour ba gis ñu Mbengue lan moo waral loolu conseiller la wala Mbengue dafa ñëw yàkkamti. billaay kenn conseiller wu ma maa conseiller sama bopp samay nit liñ ma conseiller su ma ko defoon dëgg waaye maa conseiller sama bopp ñëwaat sama xadaru bopp. yàlla nag mooy dogal ñun dañ ko doon ñaan rek yàlla may na ko ñoo koy sante bu baax a baax di ñaan beneen làmb yàlla na suñu borom ànd ak ñun. Mbengue fa la jëm. mee ngi yéen xam ngeen fu ma jëm maay. naa bi nga jugee si sa diggante safara ñàkk fan nga jëm. fi ma nekkoon ba tey maa fa bougé wu ma fa. léegi ñan comme ñan. man du ma laaj mbër. waaw am na boo xam ne da nga naan lobby laa bokk. waaw man maa ngi toog di déglu rek. man lobby nga bokk. ku ñëw làmb boole maat moom dinaa bëre moom. ku ñëw làmb pare naa pour bëre. da pare naa pour bëre képp ku ma làmb boole naa bëre moom di ñaana caat fooraa mi war a bëre samedi yàlla may ko ndam di ko ñaana caatu jorof tamit maa leen koy ñaanal ay ñoom Laurent ñoom ñëpp képp ku siy bëre yàlla may la ndam képp ku nekk jàmm ga Sicap Mbao te am combat maa lay ñaanal ndam bu seddu guy bu yomb. sa digganteeg waa jàmm gën mbéy nga nekk écurie Bathie sa digganteeg waa jàmm man jàmm gën jàmm gën dama dëkk kenn mënu ma génn biir jàmm gën di jégaluwaal tamit waa jàmm gën yëpp ak tarkindaa yéen ñëpp maa leen di jégalu di jégaluwaal waa Caaroy ndax làmb ji gis nañ nit ñoo xam ne tey amaana topp nañu ba si waa Grand waay Kër Massar am tuwa di jégalu képp kuy bëgg a Meng Mbor at ñuy sonn si man sama staff ñoo xam ne dañuy sonn si man trop trop trop at booy yu ndaw yi may àndal samay fan sama waa koñ di leen jégalu bu baax a baax ndax di leen wax ne maa leen yoreel bor Meng mboor pare na moo ngi toog ruxam avant su ñëwee suba ma dem waajaat àndal samay mbokk di ñaan yàlla suñ ma joxoon làmb dimanche bii di ñëw pare naa pour bëre waat billaahi idi dina seet suñu waxtaan waaw heure ku ma seet si libre na maa ngi fi ah. waaw jaajëf ok idi kontaan naa plus sa si yéen jàmm